waaw ok merci beaucoup nuyoo nañ la bu baax waa Goudomp nuyoo nañ la bu baax euh, ñun kontaan ak mbetteel bi ñu am mooy président Ousmane Sonko waa Goudomp dañuy dañoo yàgg di kontaan ci moom mhm. yàgg nañ ko soutenir depuis bi mu nekk ci opposition ba léegi benn parti euh, opposition mënul gañe musul gañe département de Goudomp euh, ñun def nañ suñuy kattan pour gagner département de Goudomp. léegi oto yi a génn. waaw waaw oto yi ñooy waaj a génn. oto yaa ngi waaj a génn. bu ko defee oto yaa ngi waaj a génn su ko defee caravane bi mu ngi waaj a départ euh, ndax seen na li nga xam ni mooy premier véhicule bi génn na. sécurité bi ña ngay jooyanti ñi nga xam ne aussi tamit euh, ñoo yore sonorisation yi ñoom tamit góor boo xoolee ñoom ñëpp pare na nañu léegi ku ci nekk day dem yéeg otoom mais nag tey nag caravane bi dafa gën a dafa gën a dafa gën a yokk li tax mu gën a yokk mooy waa waa Ziguinchor dañoo ñëwaat dolleekuwaat ci caravane bi mais maa ngi lay nuyu mon maa lay sant. Eh, Gora. waaw sa waay na dafa bëgg wax fan la waa APR di campagne ñoom laa doon wër fan la ñuy campagne. waa APR kay complexe Auberge foofu la ñu dee campagne si benn bureau chaque jour suñuy xëyee foofu la ñuy dem. lu tax loolu. ah moom ñu jaaxal di parce que ñun dañu génne degré boo xamante ne kenn du fi tourné fii Ziguinchor. mais Amadou Ba mi ngi mi def lu mi ngi gra mi bu mu bi même pas sax 30 minutes amu ko Ziguinchor mu daw dellu. lay wax ni barke léegi xam nga la ñuy xaar mooy Ousmane Sonko su ñibbee ñu génne décret bi boo xamante ne dañuy tëj bureau yi Ziguinchor yëpp boo xamante ne waa APR duñu mun a campagne fii Sénégal waaw ñu Ziguinchor moom hmm. waa APR duñu campagne ah loolu moom dina garaaw de waaw waaw dama ragal nag boo leen demee ñoom ñu ñëw fii yokk si ñemee ñu loolu ma ne si bureau yi ak complexe Obert la ñuy campagne ok kon maa lay gërëm la sant ok maa lay fay kontaan Ziguinchor fii. fi ñoo leen mën a jógee Ziguinchor fu euh, G ba pare bëgg dem yàqale waa waa laa yow ñun suñu président moo fi ne. Ah. dañ koy topp. dañ koy topp la waaw Kolda ma ne buñ doon français àllam sax dañuy dem. ñu moom te la ñuy topp laa wax. ma la ma wax. su neexee su neexee rek ñu fanaan. waaw gis naa kay neex na. kon nañ fi. foog ñu dem foofu rek. yoo xam nga ne Ziguinchor boo daxa xool. maa lay fay ça va. waaw waaw. man ma yaakaar ni euh, pare ngeen ci da ngeen war a toog fii def euh, proximité. non non pare ku ñu. Ah, euh, maa ngi fi maa ngi fi rek ah kontaan nañu si ay mbiroom waaw bégg nañu bégg nañu waaw waaw bégg nañu trop trop trop trop. juróom benn weer mu jékki-jékki rek ne tël. waaw. kontaan nañu trop trop trop. ba Macky du ko yoxu si. déedéet wóoluñu gëmuma ko sax. fii Ziguinchor amul opposant sax. opposant yëpp dañu daw. opposant dañu dee am fii. mais cette année amul opposant Sonko gis nga de ñoom li ñu gëm mooy fii amul opposant ndax ñoom li ñu gëm mooy Sonko rek point. daanaka lu ñu nelaw sax bëriwul mais boo gisee ñi ñëwaat nii parce que Sonko moo ko jar. fu ñu yóbbu rek ñu dem instant dañ ko fas yéene gunge ba Kolda ñu ñib si jaral nañu ko Sonko moo ko jar donc euh, wan nañu loo xamante ne ñun gëm nañ ko te yaakaar nañ bu soobee yàlla projet bi dina aboutir bépp jeune bu nekk Sénégal incha allahu rabbi dina am liggéey si kàttanu yàlla waaw lu Sénégal moom ñu delloo ko askan Sénégal waaw ñi bañ a jël intérêt Sénégal ñu jox ko int kii ay ay parce que gouvernement daanaka gouvernement bu fi nekkoon ñoom loolu lañ daan doxalee donc ñi fi nekk léegi yàlla may na leen loo xamante ne ñoom askan bi moo leen gëral te gëm nañ ko ku dem ba bàyyi euh, salaire am lu ko doon fay ak inter euh, kii nu sax avantage yu bëri yu ñu daan am ñi dindi loolu yëpp ñi wàññi ñooñu dañoo gëm projet bi donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla na projet bi abouti waaw. non mbedd mi moom vraiment daf may fàttali ay souvenirs yoo xamante ne souvenirs yi naqari parce que fii daanaka euh, mun naa ne euh, camp gendarmerie moo nekk nii camp moo nekk nii euh, policiers yi daanaka fii dañ ko barikadoon man rue bi suma sañoon ni ñu tuddee ko rue boo xamante ne uniquement rue de la résistance waaw lool moom suma sañoon ñu def ko parce que lan la jeunes yi fii lañ daan nekk fii ci ginaaw nii ay armeer la hôtel bu ngay gis ni mais booy bëri fa lañ daan fa tëdd fa lañ daan nekk fa la ñuy camper di mun a pour mun a xeexal gars yi projet bi donc comme yàlla dimbale ñu ba projet bi yegg fu mu war a yegg ñu ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax vraiment li ma jaaxal fii dafa nekk camp fii nekk gendarmerie xale yi nekk fi te ñu leen fi jëlee loolu lan la woon no loolu ça dafa ça Ziguinchor mooy loo xamante ne gis nga joolaa ñun dañu am gëm-gëm suñu mbokk mënoo ko ñëw humilier ak nu mu mënta demee rek dinañu résister gars yi dem nañu def nañu la tout ba jël ay ambulance naan malade la ñuy jël si fii dugg nañu ba ci biir pour jéem ñoo nax mais bañ ko defee aussi ñu wàcc mais ba lan booy sëkkatoo a ah, daw nañ de Moussa Fall général Moussa Fall ma kooku sax mënatul tudd général Moussa Fall nañ ko tuddee neneen ñëw na ba fii uniquement pour ñëw pour yëkkati Sonko pour humilier ko yóbu ko mais bu mu ñëwee ba fii mënu ko yóbbu de. loolu tax loolu. non si ngeen soor la rek c'est la foi rek da ngëm-ngëm la dañ ko gëm. garab gi mairie mairie taxawoon nañu ne doom di waaw waaw fii kay dafa métti ñuul kooku la doon def lacrymogène dañ koy sandi mais doo ko sentir parce que la la da nga gëm projet bi ragaluñu dara Sonko rek moo ko fi jaar. six mois après nga njëkk-njëkk dégg Sonko ñu koy dóoral Africa bi. waaw waaw gis nga fu mu wër rek ñëpp di ko ndamoo fu mu toll nii à l' international en Afrique ñëpp fu mu toll nii ñoom Sonko rek la ñuy ndamoo parce que dañuy xool. Euh, espoir bu ñu amoon ci moom ba léegi ñu koy multiplier parce que gëm nañ ko te xam naa ni dina ñëw dañoo ñëw fekk dëkk boo xamante ne dafa yàqu ba pare donc dëkk bi dañ ko war a defaraat si defaraat bi la ñu nekk bu soobee yàlla nañ lañ jox majorité absolue écrasante man 160 députés laa soxla. yàlla na jàmm amiin merci beaucoup bu ko defee soo xoolee caravane bi euh, gars yaa ngi noonu ñoom ñu ngay xaacu nee nañu am nay jamono fii soo fi masaan taxaw da xam ni. Euh, Ousmane Sonko mi ñu fi bëgg jëlee mënuñ ko fi jëlee ndax ñoom ñëpp jamono boobu taxaw nañu tem ne Ousmane Sonko du fi jóge léegi nag euh, caravane bi léegi mu départ balaa muy départ ma jëlee leen quelques réactions rek euh, su ko defee borom mbaxane bi moom neex na ma salaamaaleykum. maaleykum salaam. mais maa ngi lay naa la. naka yi tey. ça va sañse bi lan la. oui Ousmane moo mois. démb ñu jékki-jékki dégg Africa bi lan def ci yow. mbégte rek mbégte bu dul jeex kontaan ci moom rek waaw. noo gisee opposition bi damay ragal ngeen génn ñoom ñu ñëw. ah moom moom moom mu ngi noonu nañ leen seetaan rek. amul <laughs> ñoom fa lay amee fa lay amee nañ seetaan ñoom nañu dem toogi nañu dem toogi. yàlla na jàmm xaar ñu amiin. docteur maa ngi lay nuyu. waaye waay maa ngi lay est-ce tuuti rek tuuti rek. Ziguinchor toj na ñu war a dem Kolda. yow ngay chauffeur bu mag fan yii yëpp ma la nga nelaw ba nelaw nga. Ziguinchor tojul de ndax séeréer bu ñëw Ziguinchor toppatoo ñu ko. Ziguinchor ah, tojul de. yow yow ñu jënd xaal jox la nga bay. du ma lekk xaal waaw boo lekk xaal rek ma lekk xaal jox ma leneen. ñànkatang am na fi ñànkatang ak bëgg jam na fi <laughs> ñànkatang ak bëgg am na waaw jigéen terme macha allah. neex na trop mais tey direction bi. Ah. dana dana saf de. Kolda sama dëkk Saara Ndiougabe. maay borom Kolda. ma ko maay borom Kolda. mais lenn moom a xarit si yow. ku la doublé nga xataraayu. Euh, eh, waaw euh, sinon sinon yow doo liggéey sinon yow doo liggéey parce que li nekk ci oto bu ñu leen toppee. da ngay ñëw fekk 70 oto taxaw presse bi kañ lay egg si ba Sonko di wax. góor a nee na maa seetlu doo daal laajal ma waaye góor na wàññi lekk gu bari gi rek. <laughs> góor ak ay ñett fan la def ceene. maa ngi lay fay. na ngay tey alhamdulilah. après njëkk-njëkk gis ko gars yi bàkk Africa bi. non man mënu ma pro man aussi. man xamee wu ma journaliste yeeg. lu ma mën a wax daal mooy. non kii ah, kii kii kii sunu. c'est une nekk. c'est une très expérience pour nous journalistes. on est vraiment de la vivre. dans la famille famille bi ni ñu ak mooy euh, les journalistes non je, pense que on est on est on est dans de bonnes conditions mënuñu demander vraiment li nga xamante ni le luxe parce que on est venu pour travailler donc euh, les conditions mënuñu nekk au top et top mais sincèrement ils sont en train de faire le maximum pour mettre les journalistes à l'aise pour qu'ils puissent travailler vraiment dans les meilleures conditions possibles et également y a une entente une cordialité entre les journalistes ce qui est vraiment à vraiment louer parce que loolu la les journalistes doivent être man loolu laay dama koy wax sur le président des chroniqueurs judiciaires du Sénégal des journalistes chroniqueurs judiciaires du Sénégal donc union mooy def dooley euh, journaliste li nga xamante gis naa ko ci terrain bi ñi nga xamante ñoo nekk ci caravane bi di ko def les journalistes bien sûr lu rafet la lu naaj la jàppalante mooy tax ñu jëm fa nga xamante foofu la bëgg a egg chargé dañu koy avalante ne nii yu ndaw la mais de grande importance en fait si corporation bu ñu nekk nga xamante ni jàppalante moo ñu war solidarité de euh, moo moo ñu war. mais ana sama mag ji Mamadou Diaw Faye. Mamadou Diaw Faye mu ngi mu ngi si jàmm mu ngi mu ngi mu ngi si jàmm. kon kontaan nañu frère. ensemble. waa grand maa lay fay. naka yi tey. sant yàlla bu baax. loo yëg. kooka la man maître Bamba Cissé laa àndal. Oh, waaw noo gisee maître Bamba Cissé. waaw maître Bamba Cissé avocat bu talent vraiment. jàpp na si combat bi waaw loolu daal xam naa ko si daal man rek chauffeur am laa waaw. yow moom sa combat neex man sama combat moom macha allah. <laughs> non met na gars koo bëgg de. non met waaw. moom dafa am fula ak fayda bu am fula la avocat bu am fayda la. gisaguma ko moom yàlla maye ko loolu moom victoire rek victoire rek. jërëjëf gay na la gay na la jërëjëf merci beaucoup maître ñu koy euh, nuyu aussi tamit au passage di ko gërëm bu baax di njëkkoog su ko defee Abdoulaye oh Chérif a ngi noonu Chérif loo yor Chérif lu mu yor ndam la mais euh, Abdallah mais Abdallah maa ngi laa nuyuwaat. maa ngi laa fay. Abdallah noo gisee démb Ziguinchor. Ziguinchor démb lu fa amoon li jéggi na dayoo loolu. mobilisation bi rëy na nit ñi génn nañ et surtout man lu may rafetlu tout s'est passé euh, ci jàmm ak salaam amul benn problème nii ñëw nañ déglu seen leader mu wax leen lu mu nar pour euh, région de Casamance euh, projet yu gouvernement bi am yëpp war ko doxal fii ci Casamance mu jëm ci mbay mi ci napp gi ci aéroport yu ñu fi war a ubbi ak liggéey bi ñu fi war a def yëpp. wax na ko ci jàmm ak salaam nit ñi ñëw seetaan ko déglu ko et tout c'est bien passé man loolu laay gën a rafetlu surtout que politique mën na mën na mën na passer de manière civilisée léegi nit ñi mën nañ ñëw toog wax def seen ambiance ku nekk wax xalaatam nga wax li nga nar ci réew mi loolu mën na nekk te du am benn problème donc kenn du xeex kenn du xuloo kenn du du kenn du ŋàññi kenn kenn du ñàkk teggin kenn cest à mën nañ ko def ba nu mu gën a rafetee te loolu mën na nekk te war nañ ko mën a def te yaakaar naa ni sénégalais bu ñu leen xamee ci adduna bi ay yar ak teggin lañu leen xamee nit ñoo xam ne ñu responsable lañ nit ñoo xam ne ñu civilisé lañ am comportement civilisé loolu lañ xamee sénégalais teraanga donc lépp war na mën a jaar ci li ñuy wane ci adduna bi war na mën a am ci réew mi sans problème. six mois après euh, Ousmane Sonko ne tëll fii gars Bakk Africa ba jóg. waaw moment boobu yow en tant que journaliste nga gis askan bi ban réaction nga am ci waaw moom image yi damay fàttali aussi élection présidentielle man maa ngi woon ci convoi bi pour couvrir ko pour yor yor bi euh, image yi ma gisoon yi euh, lu ko raw démb laa gis waaw wax dëgg rek lu ko raw di wax kon si suuf kon gars naan naan weddi nañ ko est-ce loolu am na non non lu lay waxu caaxaan la lu lay waxu caaxaan la lu nasaraan naan loxo mën naa dem lu lay waxu caaxaan la lu lay waxu caaxaan loolu amul loolu amul ñu gis fi si terrain bi moom mooy tey la gën a nit ñi gën a am euh, courage tey la gën a nit ñi gën a am cofeel ci moom affection bi tey la gën a yaatu. nuyul ma sama mbokk internet yi nga xam ne nee nañ la bëggoon gis. ma fexe ba ba ñu gis la. <laughs> maa ngi leen nuyu ñoom ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant ne leen nañ continuer suivre live bi di partager surtout c'est important. même ci biir oto bi sax duñ ko bàyyi. waaw waaw waaw on va continuer. le travail continue ñu ngi ñëw nga may leen dédicace. la la caravane mm-hmm. on ira jusqu'à Kolda fas yéene dem ba Tamba. waaw xam naa ni waa Kolda ñu ñuy xaar. démb ay am na nu mu def nag. waaw waaw waaw loolu dëgg la. <laughs> mais kontaan nañu su ko defee waa Casamance euh, tey jii fii nga xam ne mooy Ziguinchor ma ngay ma ngay ma ngay wàcc euh, démb Ousmane Sonko def na fi loo xam ne lu am solo la mooy euh, mitin bu mag a mag a mag a mag su ko defee DJ Gora tey. Euh, ci ci simili yu néew incha allahu rabi léegi proche génn parce que oto bi koy jël si euh, nga xam ne ci la war a dugg gaa yi def nañu entretien bi ba mu ba mu oto bi taxaw. caravane bi nag tey gën naa yokk macha allah li tax mu gën a yokk nag mooy autorité yi nga xam tey ji ñoo nekk biir Casamance ku ci nekk doo ko bëgg bàyyi mu dem moom kase dangay bëgg topp caravane bi bëccëm ca mitin ba. te léegi xam naa Ousmane Sonko ñàkkul ni moment bi song na première parti campagne bi deuxième bi lay jéem a attaqué nii léegi su attaqué deuxième parti bi dina mën a xam ndax li mu defagum ak euh, fa mu jëm nan la koy organiser man je pense bien que jamono bi noonu lay def borom fukki dërëm yaa ngi ne di dem. dafa dajale fukki dërëm yëpp nee ko nag loolu war nañ koo saytu balaa fukki dërëm di manqué ci réew mi na jàmm yàgg su ko defee euh, ñi nga xam ne ñooñu safoo di seetaan ci 2A TV la chaîne du peuple euh, di jéego ñu demaat ca buntu kër ga xool bu fekkee Ousmane day waaje génn ñu digtal ko ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi ñuy seetaan partout dans le monde su ko defee ñu dellusiwaat fii ci live bi waa gars yi borom moto yaa ngi nii di jéego ñii nag ñoo yore li nga xam ne mooy cortège pro gaa ñaa ngi noonu mais grand noo tudd man ngi tudd Malick. mais grand lii lan la da ngeen yàgg a entraîné wala. <laughs> am na ci ñoo xam nag yàgg nañu def convoi. Mm-hmm. waaw am ñoo xam ne yàgg nañu def convoi. Euh, ñii jàll nañ ci protection rapprochée ñii def nañ conduite sécurité. Mm-hmm. Euh, moo tax bu ñu ñëwee. Mm-hmm. Euh, dañuy non seulement nous sommes des gens responsables balaa dara. parce que gars yi bu ñu gisee moto rek. dañuy jàpp ni c' est chose boo xam ni waruñu ko respecter alors que c' est des gens responsables yoo xam dañ bàyyi seen njaboot dakaar bàyyi seen doom Dakar bàyyi seen oto Dakar mais dañ ne dañuy defal seen dëkk donc un don de soi pour la patrie mooy li ñuy def nii saa yu xëyee ñuy xool lu ñu defal suñ dëkk xaaruñu suñ dëkk def ci ñun mais ñu ngi defal suñ dëkk mais may gis suba ba guddi jot fu gaa ne départ yéenay njëkk a départ yéenay njëkk mais yéen loolu nan lañ koy gérer waaw comme ni nga gis maa ngi taq nii affaire yi départ fu mu amee rek am na kenn ci ñu ko xam mooy wax ne ah yi de nee nañu gars yi de nee nañu ah président Ousmane Sonko miy waaj génn mhm. gars yéen ñaar dem leen ci kanam yéen ñaar taxaw leen digg bi yéen ñaar fàtte leen yoon bi nga xam ne bu génnee dina facilité dugg ci oto bi et cetera et cetera bu ñu demee ci intersection yi xëy na ñëpp duñ ko gis. ñu koy téye fii téye fii téye fële facilité convoi bi mën a jàll. et cetera et cetera parfois ñu gis loo xam ni am na danger ci kanam jiitu ci gendarme bi fa taxaw wala jiitu ci policier bi fa taxaw ne ko ah diw mooy ñëw moom it mu organiser foofu nga xam dañuy ñëw rek romb donc souvent ça se passe comme ça et organisation vraiment. boo xam ni euh, voilà ku nekk xañ nga ci. kaw tali bi da leen di gën a yombal liggéey bi. leen koy gën a yombal parce que souvent ñoom seen bopp dañuy nekk ci tali bi mhm. di xaar convoi bi mais xamuñu fan la toll. waaw il faut savoir comment parler il faut savoir comment communiquer avec eux. Mhm. il faut bien se comporter déjà pour ñu jox la cër. Mhm. ba pare yow it nga jox leen cër ñii ci convoi bi tamit mën la jox cër. donc c'est un peu ça quoi. mais caravane bi fan ngeen toll yéen a ngi nelaw baax bu baax. baax alhamdulilah on dort bien on mange bien on boit assez euh, manqué wu ñu dara quoi. bi nan dañuy def ba mu tuuru. dañuy def ba mu tuuru nga bu ñu defee plein moom. mën nañ ci def euh, de région en région. suñu moto yi nga xam ne bu ñu defee plein tey mën nañ dem benn 500 kilomètres. donc euh, mais vraiment on a pas de problème de carburant ni de ndox ak yooyu. mbiru entretien bi kan moo koy da ngeen am topp wala yéen seen bopp yéen a. Euh, convoi bi am na mécanicien mais comme je dis ñun suñu bopp yoruñu moto rek di ñun suñu moto yi mën nañ ko tas ba mu jeex tàq ba dese benn yàq. monté waat ko donc loolu yàlla may nañ ko. ku ci am problème ku am problème jàng bon yàgg yor moto mooy def loolu. mais mais ful bi ngeen di ñëw traversé te dara du yëngu ma gis leen ngeen di organisé wu di dimbali sax sécurité bi. loolu kon yéen da ngeen def sécurité. xam nga ful waaw def nañ sécurité man personnellement je parle de mon cas personnel def naa trois écoles de sécurité euh, mais ful dafa am noo ko géré boo ñëwee am loo jaay. ñoom it ñi won la ñoom ñooy kan parce que kenn moomul kenn da ngay ñëw am na lu ñu bëgg am ñoo xam ne bëgguñu dul nga taxaw sa moto vrr vrr boobu ngay def rek kontaan nañ ci vrr vrr loolu lañ bëgg nga may leen ko ñu écarté nga jàll naxante la rek àdduna méttiwul du dëgg loolu rek la yàlla na jàmm yàgg kontaan nañu kon gars yi nga gis ni ñoom ñoo yore cortège yu président Ousmane Sonko bu ko defee euh, ma ñëw Badou Badou euh, chef sécurité bi ñu ngi lay nuyu Badou 2A TV la chaîne du peuple. ça va naka mu. Euh, Badou man dama kontaan. Hmm. li tax ma kontaan mooy dama daan gis ay moto yoo xam ne naka dañ daan jàpp jékki-jékki rek topp ay cortège di dem tër tër di gaañante seen biir. Hmm. yal na yàlla lafal ñëpp cat. yàlla technicien yoonu jàmm ñun ñëpp. Badou lan mooy seen secret avant tout. alors du ma chef sécurité te duñu sécurité parce que il faut que ñu. ñu leeral ko. seen secret waaw loolu laa lay expliqué. suñu secret mooy ñun. Hmm. ay sénégalais yoo xam ne ay patriotes comme ni yëpp bëggee seen réew sopp Ousmane Sonko. maintenant mais ñun ay dawalkatu moto lañ mooy ay motards xam nga dafa am motard am dawalkatu moto. motard état d'esprit la ba pare. motard foo ko gisee dafay sol casque sol ay gants sol vest sol ay bot sol tuba dawal moto moo xam ni koo ko xoolee da ngay xam ni kii c'est un responsable donc dafay dawal du gaañ boppam te état d'esprit la maanaam nit la koo xam ni liberté da ko neex démocratie. Euh, fraternité solidarité ak surtout sens de la responsabilité civile ñu loolu moo ñu animé ñun ñëpp ñu nag dañu dajaloo ku ci nekk am na métier ah. man yaa ngi may chef de sécurité du ma chef de sécurité de man ingénieur la génie civil jànguma sécurité defuma ko am na keneen suñu koo xam ne avocat la am na koo xam ne entrepreneur la ñun ñëpp daal la moo ñu boole mooy ñun ñëpp dañu bëgg moto ay motard lañu mais li li ko gën a li ñu gën a boole mooy ñun ñëpp dañu bëgg suñu réew bëggoon jàppale suñu réew xeexal ko ci lañ commencé di xeexal Ousmane Sonko jamono yi muy nekk opposant ba ci campagne électorale présidentielle bi ba aujourd'hui mu nekk président ñu organiser wu en association ne comme ñoo ko doon gunge boobu ba léegi maintenant nañ ko officialiser defar ko convoi bi rafet de telle sorte que suy génn dañ koy yëgee rek suñu ko yëgee suñu ko waxee suñu ko waxul ñun nañ ko yëg rek dañuy ñëw fekk si ko indi suñu moto sol suñu gilet uniforme defar définir suñu règle ba pare gunge ko mu jigi fi mu jëm yegg fi mu jëm jël suñu doole ñun xam nga ñoom dañuy campagne gis nga oto fay xaalis bu bëri fay entretien fay réparation chauffeur bi nga doon da koy fay ñu mm-hmm. ngi koy fay suñu moto kenn luweewu ko ñun ñoo ko moomal sama bopp moto bii maa ko jënd ak sama xaalis di ko liggéeyee gaare sama oto kër ga keneen ak keneen c'est la même chose loolu la ñu jël ne nañ ko indi jagleel ko ko de telle sorte que mooy suñu contribution mm-hmm. ba pare dawal bi nekk loo xam ne lu gratuit la désintéressé fayee ko wuñu laaju ñu parce que ñu ñu ñu jël ñu fay moto yi mm-hmm. xëy na yenn carburant bi seen normal ak yenn entretien panne yi su faral di amee donc loolu moom la ñu jàpp ni mooy don de soi don de soi boobu mooy suñu contribution tey ci lii. mais dafa am beneen question boo xam dafa ma intéressé yéen boo leen xasee ba bay dem ni gars yi a toppe toppe du gis kenn topp leen lan mooy seen secret ba kenn leen topp yéen. organisation la rek dañuy def ay réunion am benn manuel sécurité boo xam ni dañ ko rédigé ci ñun am na ci ñu jàng loolu. ñu ne suñuy ànd di mu convoi nii la ñuy àndee moto bii mooy jiitu ki nekk à côté dafa am ku ci nekk rôle booy joué dafa am lu ñuy koy dégg flèche mooy jiitu ci nekk ci kanam moo xam yoon bi mooy jokkoo gaay donc moom la ñëpp topp ci ginnaaw am ay éclaireur éclaireur mooy ñi nga xam ne soo ñëwee ba yegg ci ville ci ay rond ñoom ñooy ñëw ne oto yi may leen convoi bi jàll ensuite am ñi ñuy woowee modérateur mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci biir convoi bi pour que oto yi ñu bañ di jéggi mooy nekk ci ginnaaw pour tëj bi su ñu demee ba benn ville benn oto war dugg dañ koy organiser ko du ñëw rek buruxlu indi accident dañ koy ne déet da ngay xaar ñu dugal la su nekkee sa oto dafa am autorité ñu ñoo lay jël sa autorité gunge ko taal suñu sirène dem ba fi mu war a positionné ñu teg ko fa te liggéey boobu yëpp dañ koy def ak waa GIGN ak agent de sécurité yi nga xam ni ko ñoom ñooy sécuriser. kon daal métier sax mais yem lu ci waaye daf dafa war a mokk. <laughs> wax boobu de dégguma ko waaye dafa mel ni loolu loolu la de. yàlla jàmm yàgg jàmm xéwal. mais gis nga pour le moment euh, gis nga gis nga gars yi par exemple boo xoolee moto yi euh, mook moto gendarmerie soriwul parce que moto yu ay moto yu cher la. ndakate ñoom ñoom seen moto bopp la dañ ko jënd ci lu cher di ko liggéeyee mais bu président di dem fenn suñ ko yëgee rek dañu ñëw indi seen participation mu nekk ay nit ñu baax nit ñu am solo di liggéey tamit ci biir euh, caravane bi liggéey boo xam ni liggéey bu ama am importance la su ko defee. parce que euh, yaakaar naa ne ñoom mënuñu fa woon ñàkk quoi Patriot Riders yi parce que euh, soo xoolee convoi bi comment c'est organisé nan la oto yi di dawee rythme bi ñuy dawee comment ils font pour euh, sécuriser convoi bi ak blocage yi ñu def ci intersection yi mais surtout ak oto yi nga xam ne duñ daw normal ñu leen di guider di leen indiquer non je pense que mënuñ foon ñàkk quoi. donc euh, li mooy wane ne aussi beneen phase rupture la parce que indi wuñu ay motaaru gendarme wala policier ay patrouille riders la ñu indi gars yi seen oto personnel la ñu yore seen carburant la ñu donc loolu moom sant yàlla bu baax te Patriote Riders yi ay jàmbar leen ñu jar a jàppale leen mais surtout dara ko loolu moo mi noonu luñ luñ ci am rek jël. benn ñu ngi lay nuyuwaat. war na yàlla. kii la journaliste ah foo mu wax loolu waaw bismillah loo bëgg ma wax. mais aussi euh, li nga xam ne moom jour euh, ñun ñëpp sonn nañ ndax euh, gis ngeen condition yi nu mu méttee ndax ànd ak Ousmane Sonko li ci métti mooy nit ñi dañuy topp te kon nit ñi topp di nga tardé. te ku tardé sa programme day chamboulé wu moo tax chaque fois da ngay gis ne programme bi dañ faral di modifier su nga tey par exemple dañoo bëggoon prévoir fanaan Ziguinchor mais finalement dañu mujjee fanaan ba Tamba donc ce qui montre que déjà nit ñi dañuy xaar fépp. te fu ñu dem dañuy ralentir même fu ñu warul woon taxaw sax dañ fi mujj taxaw parce que nit ñi dañuy xaar te xam nga nit su loo yëgee da koy jox cër bi tamit donc loolu moo am solo te maa doon wax faral di wax ak gars yi ma ne ko ñun nag on fait des vidéos dañuy def 360 degré wane fépp wante nag ku ñemee sa convoi wóolu sa bopp na nga def tamit ay vidéo def 360 degré war ñu ndax am nga mbooloo am déet. mais loolu sa domaine la yaa koy def te gis nañu li nga def yaa ngi ciy def liggéey bu am solo aussi lan moo waral nga wax kàddu gi nga wax. waaw li tax moo ko mooy dañoo xool ne campagne bi ñu si bëri tëkk tëkkuwante mais doole yi dañoo bokkul. doole yemul doole gis ne ñoom c'est en général dañ ay plan serré la def wala boog euh, seen euh, presque meeting bi yëpp ñi ñuy photo wala boog ñi ñuy vidéo mooy seen leader yi ñun leader bi dinañ ko jël certes mais on prend beaucoup plus la foule mais surtout on prend en 360 degrés maanaam fépp la ñu wane ñoom nag dañuy concentré focaliser wu ci benn espace loolu mooy wane na amuñu mbooloo nag da nangu li yàlla dogal te ko nekk am mbooloo nga nangul ko li ko yàlla may. alors Bentaleb la mënuñu daaneel te duñu ñëw ci le retour au du président Ousmane Sonko mhm. yow témoin oculaire des faits ñun ñëpp fi la ñu fekk tey retour bi lan lan la la fàttali. Euh, gis nga Ziguinchor soo xoolee ba ñu jógee terrain Lindiane dama dox jëluma oto dama dox ñëw li tax parce que dama bëgg fàttaliku fii la lañ fi dundoon fii su fi taxawee tey jii nii su ma Euh, jamono bi ñu fi nekk nga ne muy métti fii yëpp ay grenade lacrymogène la woon fii yëpp ay xeer la woon gendarmerie moo nekk côté bale ñoom ñoo ngi doon dóor ay grenade gis nga policier côté bi lañ lañ doon nekk boo ne àdduna lépp rek nettal lay mujjee mais surtout li nga nekk na ko gëm na nga ci dëggu mais surtout na nga ko ñemee soo ko ñemee lépp loo xam ne yaa ngi ko ciy wut da nga koy am fay na maa luus riusra yéen na maa luus riusra àdduna moom ah mu ñal rek jafe-jafe boo xam ne dund nga ko yomb yomb ma ci topp te loolu rek moo am solo ci àdduna donc moo tax euh, Ousmane daf ñu jàngale àdduna daf ñu xamal luy àdduna te ànd ak boo am fit bi nga xam ne gën na yàlla daf lay gën a soññ daf lay gën a dooleel loolu moo tax njëkk si fii tey. yàlla jàmm yàgg jàmm jërëjëf. jotaay góor a gis nga mbir mi mi ngay euh, takkar naa si góor a jamono ji góor te ma déclenché wala ma xaar ba ci kanam. <laughs> gó góor yërëm ma xam ne naaj bi daa tàng maa ngay miir waa Aydara Aydara nee nañu ñëw añ mais Aydara Aydara ana lu sedd yi Aydara jox ma boisson oh star baa ngi nii ñëpp a ngi koy di photo ak moom nit ñaa ngi koy foon góor a nit ñaa ngi koy foon jamono bii ndeysaan. fayal fayal fayal fayal. non non non. xale bi demagul li dama daal la wala yaasa. lii suluxu la. suluxu mbalax lañ togg tey gis ngeen gars yi suluxu bi. yéen a koy seetaan partout dans le monde ma jël benn wala ma continuer. continuer leen kii nag mooy ay dara léegi nag Aïdara bi ñu doon critiqué naka tey sa du yéenante la maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. directeur Rasulullah bi gars yi doon yuuxoo gars yi def nañu erreur. waaw <laughs> ku ko jiite. sa comprendre rek. képp loo ko jiite. gars mooy loolu quoi yow mi yow mi yaa ko jiite. <laughs> directeur maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. ay eh, góor a ñool. directeur maa lay nuyu. maa lay fay sëñ bi. mais gisee campagne yi jamono bii. wuu métti na de surtout ñun moom ñun ko ko ko ku ànd ak Ousmane Sonko moom buñ la waree fay cent moom dafa mel ni dañ ko war a multiplier par mille ba mille de wala ko. ah maa ngi maa ngi maa ngi xam ah. euh, may dimbali. waaw waaw xorom pole bi ka andi sax. xorom pole. <laughs> saa yi borom mu ngi noonu andi ko anamu sax fii la koy def de moom. kon nag yi mi ngi noonu. mais <laughs> kii nag moo dëkk Ka Ziguinchor avant Dakar la ma nee bu ñu àggee Ziguinchor nga xam ne yëpp dëgg la ñu àgg si mu laaxatu ma euh, kon nag mbokki internet na gis ngeen lim def ñaaw na waaye nag baal naa ko euh, su ko defee euh, añ bi ñëw na añ bi da añ. et eh, añ bi ñëw na añ bi ñëw bu ko defee Ousmane Sonko otom bi génn na. Omar. maa ngi lay nuyu. maa ngi la. waaye billaay maa la raw yaaram. yaa gën ci réew mi. maay ba kenn du yow foo nekk kenn du ñëpp loolu rek nitu àjjana rek kay koy def wallahi yaa gën ci réew mi. wallahi gisee presse bi seen taxawaay waaye barke alxuraan beeg rek. c'est-à-dire ndaxte ñun xam nga ñun ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si équipe communication bi mënuñu woon relayer suñu ay information lu dul ñu jaarale ko ci presse bi. te yàlla dimbali nañu boole ñoog ay nit yoo xam ne maam ils sont formidables et extraordinaires ñi ngi liggéey boobu ba tey ci ambiance bu neex ambiance bu festif bañ na ba ñëpp dañuy tooñante mu mel na benn famille la ñu am yàlla na suñu borom dimbali ñu ñu yeggale lii ñu sumb si jàmm incha allahu rabbi te képp ki nga xam ne teew na fi ak moo xam teew nga fi wala teewoo fi nekk ci euh, ahlu presse yàlla na suñu borom defal la lépp li ngay wut ci euh, milieu bii nii nga am ko ci jàmm. dégg naa pare na. gaa yi nga koy. tey sebon bon lañ indi. yaa ilaha illallah c'est bon. waaw ah, teel ak kay Casamance lañ nekk nag dañuy wuyu ji Ziguinchor nag. man am na benn waa Casamance boo xam ne. Ah. daf maa trahir. âge. Dakar ba tey Dakar ba tey mi ngi naan ma ba ñu àggee. su ko defee gars yi maa ngi leen di bëggee ñuy wax ni ñu ngi waaj a départ pour dem fii nga xamante ni mooy euh, ca Kolda du Kolda lañ jëm. waaw mu ngi noonu Kolda lañ jëm teel ma nii. la gars yi. ak euh, capitaine Touré. waaw. donc ñoo dëkk foofu. waaw ku nekk si ñoom yor sa mouvement mhm. euh, nekk des alliés du président Ousmane Sonko nekk des alliés de la coalition Diomaye Président ñooñu lañuy seeti tey ak responsable euh, Pastef yu nekk Kolda yëpp xam naa ni ñu ngi ñuy xaar xam naa ni terre bi dana rëy comme ni ñu ko gisee en tout cas élection présidentielle yi passé campagne ba tertu ba rëy na trop mm. waaw. kon tey waa Kolda kon nañ waaj de Kolda mi nga xam ne tey jii may mun a